الى جهه من اي دغه بسم الله attew Khalifa Sall ba eh, du yomb de déedéet su wàllum caisse d'avance googe ak nam nekkee wàllum politique waaw ak nag lu jëm kon ci wàllum attew maire de Dakar googe waaw ma la Papa Diop day eh, ak Mbaye Ndiaye ma la satal nañ Khalifa Sall laa la wax yaa jum wala maa jum ma ne am dama ne la dëggal nañ kon li Khalifa Sall wax ndaxte gis nga Papa Diop yi eh, ci lu jëm nag ci wàllum doxu ñaxtu bi nga xam ne opposition bi doon nañ ko amal ci ji ñu génn ca la xam lee ne man Papa nekkul ne maa créé kon te nekkul ne tamit Sall mi moo créé boobee boobee te xaalis bi fond politique la te gis nga xaalis boobee waaw jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la askan wi dund day te lañ di jàppale seeni préoccupation yéene kaa gi ne njaay tamit day waaw daal di ne dëggal li Xalifa Sàll kon wax uh-huh. waaw waaw ma ne lii politique la mbay njaay responsable APR ca Parcelles Assainies ma ne la monsieur le ministre waaw ci am ndaje politique day te la yëkkate woon ay kàddu xam le nag maanaam lan moo tax ba Xalifa Sàll a waaw ministre d'État Mbaye Ndiaye yemu ca parce que xam le ne ndaari tër ca suuf ne du bootu ci ginnaaw président Macky Sall eh waay Samba eh waay kon daa war a bootu eh waay Mbaye Ndiaye ne waaw comme ni ko yeneen maire yi doon defee la ko si yéene kaay ne Khalifa Ababacar Sall day waaw ne la dugal na mbay Ndiaye ca biir caisse d'avance ba wal Fadjri ne Mbaye Ndiaye juum na non Mbaye daa daanu mbay juum na pour la def de waaw waaw ma ne la mbay Ndiaye day ma nga woon ca seede kon ca araba waaye ministre d'État Mbaye Ndiaye waaw nee na problème sax waaw waaw bu doon Khalifa Sall d'accord naa ñëw ànd ak ñin ñin waa APR eh waay Samba <laughs> eh waay Mbaye Ndiaye ne waaw parce que Khalifa nag dafa lànk ndaare tëdd ca ne du ñëw nag bootu ci ginnaaw président comme ni ko maire Dakar yëpp daan defee dañ daan ànd xam ne fa la président de la république ba ko ne eh waay Samba Walfadjri ne Mbaye Ndiaye day waaw dëggal na li Khalifa Sall kon wax ne lii procès politique la politique kese la laas ay vidéo di film day lañ teg nekkoon démb ca teew Khalifa Sall ba waaw ma ne la Mbaye Ndiaye daal dinay seetal Khalifa Sall nag ba Khalifa kon set wéet waaye day doomu Dakar Ndiaye Dia Diop di ko càmbar waaw ma ne la am na ci avirement xaalis la boo xam ni jaaxal na lool waa inspection générale d'État dama ne la percepteur bi nga xam ne moom moo fa nekk ni la day bañ ko laajee waaw ca kaw société générale de banque au Sénégal la dal SGBS waaw ñooñee ñoo juum jaawale kon ay compte bancaire eh way Samba ah maa la ko wax Barthélémy Dias ci laas yéene kaay nee na dama ne du nguur gi du procureur de la République amu ci kenn koo xam ne kon mën ngaa indi ay firnde ne Khalifa Sall mi daa jël lu moomul Barthélémy Dias yemu ca waaw parce que nee na gis nga nguur gi day kompolo rek kompolo rek bu dee procureur de la république moom koo moom soxoro ko jàpp message c' ah. doomu Sampal Dias ka yemu ca parce que maire Mermoz gis nga xaalis bii fonds politique dérogatoire spéciaux ak secret waaw dama ne xam nañ ko parce que dañ ñam uh-huh. baxti waaw yéeni kaa gi ne président Macky Sall day daal di ne tontu Idrissa Seck uh-huh. waaw waaw ba noppi nag daal di dëkkoon opposition bi ci seen ma ma mareyéer waaw ca la président Macky Sall xam leen ne gis nga ñi bari li loolu kese la waaye man opposition bi jaaxaluma yéen ñi ma àndal boo leen tëddee nelaw leen Macky Sall ci l'observateur ne jiitu naa leen sànni karawaas eh sàll ngaari lam tooro ali baba kumanaar président Idrissa Seck ne ko yow da dul dem sax nag deuxième i ilaha illallah <laughs> Idrissa Seck nee na Macky Sall du dem sax deuxième bu dee lii ma gis ci waaw nit ña la nekk seen xol la ñu wane ci bisu élection yi dama ne la Macky Sall du dem deuxième tour ëppal <laughs> ah nooy moytoo sa noon Idrissa Seck ci la ko tijjee ne kaay la yow koo xam ne ci élection député yi day Benno Bokk Yaakaar waaw weesu woo cinquante pour cent waxantuma la millions yi nga xam ni kon inscrire nañu am léegi fukki at ak juróom-ñett problème moom ak yëpp deuxième tour la problème moom yëpp deuxième tour la Idrissa Seck ne waaye dana ca dem de waa kaw ga dee la nekk seen dënn bis buñ ko wanee ci élection yi non Macky du sax dem deuxième tour yéene kaay ma jamal jaa ngi ne idi formula enquête yéene kaay ne waaw ma ne ñoo fi ne de ah maa la dañoo indi lu bees daal bu ñu sukkandikoo ci Jibi Jaxate professeur Jibi Jaxate moomee waaw waa juum nañ Idrissa Seck ci la ko tijee ne kaay dara Macky Sall daal na ñëw ñu def débat télévisé Walf Fadjri ne gi ci lu jëm ci alal ci leewul ji day waaw ministre Amadou Ba yëkkati waat na werante ba de coow la judd waat na de lan na rajur coow kay la solo yéene kaay nee mooy résultat yi nga xam ne ñeent ci baax na <laughs> ay erreur yi daal moo ci am 1 virgule 2 1 virgule 9 ci 6 millions 200 délégués laas Italie Vox Populi ne Augustin Senghor day président fédération waaw nee na ko di monde ba la fay dem ak waajaj yëpp daal juróom-ñaari milliards astut la ñu soxla eh way samba sa milliards cent coupe du monde bi football ca jamono jooje le quotidien yi rek ay nee na waa Thiès day waaw dañoo mar lool lool sax amul ndox te moo ni premier ministre ba dee ba mu inauguré kon Château ba waaw mars 2016 yaakaar ju du woon na waaye yaakaar ga tas na Thiès amuñu ndox Walf Fadjri ne kon Dakar wu ngi bañ Dakar moom robinet ndox amul te moo ca jamono jooje le réew mi yokkute am na fi de ah. waaw waaw sept virgule cent <laughs> alaaji taux de croissance sept virgule cent ne réew maa ngi yokk ay capital régional di ñàkk ndox muñ naan baax na boo paree ma ne la alaaji tëjal mas